je m'appelle euh, Maître Ngone Diop Nia. Euh, il faut savoir que moi j'étais la présidente du bureau provisoire. Il y a quatre ans de cela, on avait organisé une assemblée générale afin de mettre sur place un bureau provisoire dont les missions principales étaient de trouver un récépissé pour la, pour l'amicale et d'aller vers une assemblée générale pour euh, élire un bureau qui pourra commencer à dérouler ses activités. Et aujourd'hui, on en est là, à cette assemblée Euh, consul à cette assemblée générale voilà le l'amicale des greffiers du Sénégal c'est un cadre d'échange en fait jusque-là les greffiers n'ont pas eu un, un cadre euh, où, où échanger où on parlera un peu du métier de greffier d'essayer de faire connaître notre métier à travers euh, le Sénégal parce qu'on s'est rendu compte que notre métier un peu méconnu du public alors aussi renforcer les liens entre greffiers euh, travailler dans le renforcement de capacités, pourquoi pas Alors, euh, c'est les principaux objectifs euh, de l'amicale des greffiers du Sénégal. En tout cas, réunir tous les greffiers autour d'une table. Vous êtes sans savoir que nous avons des syndicats, mais les syndicats regroupent les, les greffiers et les agents et secrétaires et autres personnels de la justice. Mais là, l'amicale des greffiers du Sénégal, comme son nom l'indique, regroupe simplement des greffiers. Voilà. Euh, Bon, pas vraiment, parce que l'amicale a existé bien avant l'incision. L'amicale a existé, je vous disais tout à l'heure, depuis euh, il y a 4 ans de cela, on a mis sur place le bureau provisoire qui devait travailler euh, pour avoir un récépissé et organiser une assemblée générale. Donc ça n'a rien à voir. C'est juste un cadre d'échange pour les greffiers qui leur permettra de parler de leur métier, de renforcer leurs capacités et de renforcer la solidarité et l'entraide entre greffiers. Bon, actuellement, nous disons, bon, les objectifs principaux étaient, par exemple, de travailler dans le domaine de la, de la couverture sanitaire, surtout, et de l'habitat, dans le cadre social aussi. Mais surtout le renforcement des capacités et faire connaître notre métier à travers le public. Voilà, c'est ça les principaux objectifs fixés par que l'AGS, la, l'amicale des greffés du Sénégal, se fixe. Euh, non, loin de là. Euh, le, le, le, métier, le, greffier occupe bien sa place dans la chaîne judiciaire, mais le métier est méconnu du public. On se rend compte qu'à chaque fois, les gens se demandent c'est quoi un greffier. Et ça, nous voulons y remédier. Et nous disons que notre corps se rajeunit de plus en plus. Et il y a beaucoup de potentiel dans le corps qu'on voudrait exploiter, faire connaître notre métier. Pourquoi pas c est, c est, partie des objectifs principaux de l'amicale des greffiers du Sénégal. Par Bon, ça, je ne vais pas me, me, pendre sur ça, me pencher sur ça. Vraiment, ce que je vous dire, c'est que les objectifs, c'est de raffermir les liens entre greffiers, renforcer les capacités, travailler sur la couverture sanitaire des greffiers et sur d'autres projets qu'on a. Le champ est vaste, on ne peut pas parler de tout. Alors, c'est exactement bon, ce qu'on peut, tout ce qu'on peut dire par rapport à l'amicale des greffiers du Sénégal. Euh, may nuyoo man Ngone Diop laa tudd maître ngoone Diop ñaa man maay présidente bureau provisoire amical des greffiers du Sénégal bi ñu def tegoon fii il y a quatre ans bureau provisoire parce que dafa amoon benn ñaari mission yu ñu ko assigné woon ñaari mission yu ñu ko demandé woon mu def ko mooy mu wut récépissé ba nga xam ne amical bi dina dina nekk lu légal mën a def ay activités mais aussi ñu dem ci assemblée générale teg fi benn bureau boo xam dina commencé di di def ay jéego di liggéey ci ci ci secteur bi tey nag mooy assemblée générale bi nga xam ne ci la ñuy am bureau ci la ñuy waxtaan ci suñu texte yi euh, waxtaan ci suñu biir waaw parce que boobu ba léegi aussi dañu gis ni suñu métier li ñu ko xamee des na dañu jàpp ne ñun war nañ si mën a def ay jéego pour que ñu xam lan mooy métier ci Sénégal aussi suñu corps dafa bëri ay jeunes jeunes yu bëri talent yu am potentiel yoo xam ne dañu jàpp ni war nañ ko mën a exploiter ba léegi des na waaw du dara nag mais corps yëpp am nañu ko ñun nag boobu ba léegi dañu amul amical te suñu cadre d'échange la boo xam ne jàpp nañ ni dafa waroon sax yàgg ñu teg ko sur place amul mais tey si loolu la ñuy liggéey moo tax ñu dajaloo fii tey voilà. lan mooy waaw solos bi mooy li ma wax sànq rek dajale greffier yi ñuy dajale ci di waxtaan seen biir di def ay renforcement de capacité dans le cadre de formation ñu gën a defaraat suñu bopp wan nit ñi lan mooy liggéeyu greffier importance bi mu am ci secteur judiciaire ci chaîne judiciaire bi greffier bi ban place la si occupé ndax ñu bëri jàpp nañ ni xamuñu ko dañ ñu koy wax chaque jour dañu ko laaj ñun ñu jàpp ni dafa yàggoon ñu war a mën a waxtaan suñu biir ba am cadre boo xam ne nii officiellement dina mën di doxal di waxal greffier waaw parce que jàpp nañ ñu bari nag xamuñu lan mooy greffier te ñun tamit suñu liggéey la ñu xamee lan xamale lan mooy métier greffier waaw. waaw suñu préoccupation yi gën a rëy daal xam naa ni entre autres mooy gën a a dajaloo daal gën a nekk benn waaye tamit liggéey ci li nga xam ne mooy habitat ak li nga xam ne mooy nu ñuy fajook nu ñuy jële en charge suñu njaboot ci mbirum paj ak lépp loolu ay objectif la rek yu amical yi du fixé wu mais bëri na loo xam ne nii dina bëgg nañ ci liggéey bu soobee waaw li mbirum fonko mi bi moom xam naa ne duma ci wax lu bari mais li ngeen war a xam rek mooy tey daal dañ dajaloo pour teg suñu cadre boo xam ne ñun greffier rek ñoo si retrouver wu dañ dañ si war a mën a retrouver wu waxtaan ci suñu métier ndax defe naa ni corps yu bari am nañ ko bu fekkee duñu corps bi ñun ker corps bi ko amul ñun kese lay doon te defe nañu loolu ba léegi bon bilan bu positif lañ fi defam ah, parce que objectif yi ñu assigné woon mooy ñu wut récépissé en plus ñu ñu organiser assemblée générale loolu moo nekk deuxième objectif ci la ñu nekk tey pour ñun euh, on a atteint vraiment réunir collègues yi aussi ñu jógee tey jii ñu nekk ci région yeeg ñëpp ñu ngi fi waa Louga waa Saint-Louis on na des gens de Mbour de euh, de euh, Kaolack euh, ñoom ñëpp ñu ngi fi teew pour ñu bokk journée bi rek journée waxtaan la la misso waaw waxtaan suñu biir daal loolu rek la amul leneen. waaw syndicat ak amical du benn syndicat bi dafa regrouper ami greffier ak ku dul greffier keneen ku bokk ci justice waaye amical bi nag moom ay greffier kese ñoo ci ne. ay am greffier kese ñoo ko bokk waaw dafa nag corps nag dafa fekk ni boo bëggee mu avancer fook ngeen di dajaloo am cadre boo xam ne seen yëfi bopp la ngeen ci waxtaan di def renforcement de capacité surtout waaw loolu mënul ñàkk mais nag syndicat bi ñu ngi ci biir ñun ñëpp ñu ngi resté dans le dans le amul dara lu ci changé waaw